mooy ne man dama doon xaar président Macky Sall ne moom day dina tànn candidat waa Benno protesté mais les alliés protesté ñu protestation beeg euh, mbiicoo mballoo bi ñu ngi ko nemmeekoo ci waa APR lan ngay wax tes amis de l'APR la parce que man mes amis de l'AFP laay waxal. les amis de l'AFP laay waxal mais tes alliés tes alliés de l'APR là. aw ma lu ma wax ak ñoom j'ai pas de leçon à leur ah. donner. Euh, Aly Ngouille démissionné na am ñu bari ñu ngi koy tooñ mais Aly Ngouille du ma ko tooñ parce que dama bëgg mu mu ñëw ci man. Ah. donc damay téye li <laughs> <laughs> ba mu yegg si Aly Ngouille en pleine campagne agricole bu déglu seen daf yoonam euh, Mame Boye Diao toll la fële euh, Abdoulaye Daouda Diallo renoncé na ci candidature mais bon euh, y a des réajustements qui être être faits ñooñu li ñu def lépp ah bañ koy réglé Macky Sall la ñuy waxal par rapport ak voie bi ñu tànn ak seen décision mais en tant que politique yow te membre de cette coalition parce que li ñuy def noonu mën na leen mën na nërmeelu seen chance yi pour que ngeen ngeen gagné en 2024 am nga ci responsabilité am nga ci cër mhm. loo ci xalaat xam nga lu ma ci xalaat ah. nañ régler seen problème dans le cadre de l'APR mais mu ngi impacté coalition bi. impacté gul coalition bi ci naka la ko impacté. parce que APR seen mbiicoo mballoo bii ñu nekkee. waaw ak seen sectarisme bii ñu nekkee bu wéyee 2024 doo leen sax dem deuxième tour. d' accord eggaguñ ci. et bu boobaa dina compromettre les chances de votre coalition. qui a gouverné ce pays la pendant 12 ans. ñun je donc am nga ci am nga ci je pense que ñun. Hmm. AFP ak yeneen alliés yi nga xam dañ jël ni Macky sal def jox nañ la carte blanche. mais Macky Sall bu ñu ko joxee carte blanche tamit ba président Macky président Moustapha Niasse di lire dafa ni nous. c'est inclusif. waaw c'est inclusif. dañuy waxtaan bedd mu leen yow yow jox leen kii dina am leen liiral yi déedéet ay kilifa ñoo ko waxtaanee sur la base d'une kii téologique boo xam ne bi ñoom seen expérience seen vécu ak seen trajectoire. moo justifié ñu def les point d'appréciation et de notation. mais ban appel nga leen di lancer waa APR yi parce que yow xam nga li ci nekk ci division. xam nga lu ma leen la parti socialiste ba xaaral rek parti socialiste ba Djiboka demee 98. waaw beddee ko 99. waaw ça en était fini. waaw du du du du du parti socialiste. on mhm. choisit Tanor. Mhm. ñu tuddee ko congressant tu sais l'histoire se répète un peu ah. d'accord ñu choisir Tanor. Euh, mhm. ñu tuddee ko congressant débat. Euh, débat bi ñëw 98 Djiboka dem 99 euh, Moustapha dem Moustapha Moustapha Niass dem d'ailleurs l'opposition de l'époque dem jëli ji Ablaye Wade ne ko le moment est venu mm -hmm. on peut euh, le le parti socialiste yeah. l'histoire se répète un peu pas de la même xam façon xam nga aujourd'hui ce qui est constant ce qui est constant ba tax du ma wax ci waxe APR e moo di lu waa APR yëngatu yëngatu yëngatu yëngatu la finalité c'est de conserver le pouvoir mais bu n'allez pas conserver ça si les gens de l'APR la e continuent comme ça man waxuma si dugaluma conditionnalité boobu dama la quelque de factuel ñeen la nekk ci biir APR yëpp nekk candidat ku ci nekk bëgg nga conserver le pouvoir nous les alliés nous ko que ce pouvoir se conserve pour pouvoir terminer l'enchange des chantiers yi nga xam ne dañu àndoon président Macky Sall def ko te ñaari mandat doyul pour terminer chantier yooyu. moo tax ma ne la lan nga leen di une équipe capable. d'être autour d'un candidat fexe ba nga xam ne bii gagné nañu élection yi continuer ce vecteur directeur bi ñu président Macky Sall tànnal en tant que président Benno Bokk Yaakaar mais les discussions internes par rapport à un parti politique par sagesse par éducation et par petite expérience politique je ne peux que prier. pour que yàlla tappe xol yi. ñu fexe ba doon benn. merci xam ni lii ñu wut nii il faut ñu ànd ak benn sentiment de vie communautaire jàppoo téente gëm li nga xam ne lii mooy conserver sa pouvoir pour pérenniser li fi président Macky Sall def avec le Benno Bokk Yaakaar. merci beaucoup.